ngeen jëf mbokku Sénégal mbokku àdduna mbokku internet yi tey nag ñu ànd ak suñu site bii di firi info point com àggal leen ci atelier bi nga xamante ni moo nekkoon atelier de formation atelier bi nag ñu ngi ko defee woon mairie nekk ci àllarba fukki fan ak benn ci weeru mai 2022 mais fee nag moo ko ministre de l'emploi, de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion. insertion ñoom nag tey ki nga xamante ni moo di premier adjoint du préfet département de Koungheul waaye premier adjoint maire de la commune de Koungheul waaye

waaw jotaay bi tey dañ fa dajewoon si benn atelier boo xam ne le ministre asan diob ancien président du conseil départemental moo ko initié woon en rapport avec le maire de la commune aliou badrali vraiment ñu amone honneur vraiment abrité cette rencontre ah, là waaw rencontre bo xamné le la question de l'emploi donc avec le, la présence donc du directeur de l'emploi vraiment ñu won fi pour tagat vraiment ndaw yi sama ay domaine yo xamné vraiment mo soxon ndaw yi jëm ci walu emploi walu walu liguey waaw l'emploi des jeunes donc nous tañewum ci suba nak vraiment sous la présence vraiment eh, du préfet wax na ko sank di directeur de l'emploi ak nga délégation bi mu andal tougué dakar mon honneur vraiment pour accueillir vraiment cet atelier vous savez, la participation tous les jeunes du département vraiment participent ici à atelier dans chaque jeune dans chaque commune donc il y avait cinq jeunes on avait évité donc dans cet atelier là. lan ngay xaar si département bi nga xamante ne ñu ngi participer réunion tey. xanaa rek ñu tiré profit vraiment de cette formation Nous avons nañ ko ouvertures. si ouverture bi formation bi am solo la ndax am ay compétences nous avons ne yu jeunes yi amuñ ko. en terme de de de de de nu ñuy bindee CV en termes de euh, entretien ak yeneen ak yeneen yaakaar naa si modul yi yoo la loolu nag wax nañ ko ne jeunes yi des fois da ngay dem ba am benn bi am maîtrise vraiment am capacitation en en en ces en ces modules là. donc tey atelier bi bu ñu ñëwee vraiment pour tàggalee si wàllu woowu ça ne peut être bénéfique donc au profit des jeunes ñu ñaax jeunes yi rek vraiment que lii vraiment ñu utiliser ko à bon escient fexe ba affaire bi ñu continuer ko. pérenniser cours dans le département en rapport avec euh, Pôle emploi Nous avons représenté le la gestion de l'emploi. donc nous avons vraiment structure boobu Nous avons ne des na mais dans ko xam formation du doy formation continue Nous avons na rapproché Pôle emploi vraiment accompagner dans ce cadre là pour le Pôle emploi, en termes d'emploi, de demande d'emploi aussi nous avons vraiment la jeunesse du département bénéficier aussi donc nous avons vraiment ñu cette formation là et gërëm aussi vraiment le ministre Assane Diop avec la maire Aline Badali ensuite la direction de l'emploi. Je di jël vraiment parce que y, pour a aussi formation ñu mu ci et aussi en termes aussi d'emploi des jeunes le président a na mébét vraiment par rapport à l'emploi des jeunes yaakaar naa jeune Koungheul wala ñu si des gannaaw war nañ fexe bu gis seen bopp te là donc c'est le début de tout un ñu ñaan nag vraiment ñu continuer que la demande d'emploi les emplois soient effectifs donc au niveau de la du de Koungheul loolu am yaakaar te bu neexee yàlla la mairie aussi bien que la mairie la commune avec le maire Alioune Badara Gueye dañ si def taxawaay bu solo ba accompagner les jeunes par rapport à ces demandes à l'emploi Man Mariam Dien, je suis euh, chef de division chargé de la promotion de l'auto-emploi et des initiatives communautaires à la direction de l'emploi. Euh, merci beaucoup pour la, question. En fait, nous, Mercredi de l'Emploi, c'est une activité qui les communes et les, et les départements. En fait, c'est dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques de l'emploi. Donc, c'est des animations de terrain unies des communes pour expliquer un peu les dispositifs que l'État a mis en place pour euh, l'accompagnement vers l'insertion. Donc, dispositif accompagnement vers l'insertion via emploi salarié, là, ou la entreprendre. Donc, pourquoi le choix de Kungel en fait, c'est le moment de nous remercier le ministre Hassan Diop parce que c'est lui qui a initié l'activité, nous approché pour nous euh, organiser l'activité en concert avec notre ministre de tutelle, c'est-à-dire le ministre Dame Diop, via le directeur de l'emploi, Pape Modifal. Nous remercions remercier de passage. Nous sommes tamit mairie, nous sommes gëna yombal tout ce qui est organisation au niveau local Nous sommes ñu ko ak suñu partenaires que ce soit la jeunesse conseil communal de la jeunesse que ce soit tamit suñu collègues qui nous représentent au niveau local notamment pour pôle emploi le premier première bi c'est ñu informer jeunes sur dispositif qui existé parce que gis nañ ni pôle yaa ngi fi euh, dispositif yaa ngi fi malheureusement jeunes yi xamuñu ko bu donc à travers session yi expliquer quels sont les dispositifs qui existent. ensuite expliquer ce nañ dit, nan la ñuy outils pour ñu un emploi salarié ñi bëgg entreprendre expliquer nañ leen nan développer l'esprit entrepreneurial nan on peut def une bonne éducation financière Et tamit expliquer comment on peut am nañ dispositifs au niveau local notamment poli. donc on approché poli parce que poli est un démembrement euh, état là sur le point point de vue emploi. ok bëggoon nañ tamit ci modèle yi nga xam ne développé ngeen ci biir muy technique de rédaction CV ak li mu àndal ak mm. comme ni ma ko au départ insertion ñaari voie la mën nga insérer yow via emploi salarié te pour nga am insertion via emploi salarié il faut que mu am ay outils de base yoo maîtriser outil de base yooyu la rédaction de CV la rédaction de lettre de demande la rédaction d'une lettre de motivation ak comment faire euh, l'entretien d'embauche parce que pour une entreprise privée il faut apporter ko valeur et apport valeur dépendent day dépendre les compétences hard et les compétences soft c'est-à-dire les soft skills et les hard skills donc y a defoon pour insertion via l'emploi salarié donc insertion via l'entrepreneuriat nous avons deux modules c'est-à-dire euh, l'initiation à l'esprit entrepreneurial pour nous booster un peu l'esprit entrepreneurial de la jeunesse de Kungel, pour nous dire qu'il y a des opportunités au niveau local qu'il y a des structures qui peuvent les accompagner pour nous entreprendre Ben, def nak moy éducation financière parce que gis nañ ni muy jeunesse bi muy suñu yaay yi muy ndaw ñu ñoo xam ñoy cible principale programme d'urgence gérance bi day dess wala nga jox leen financement après pour ñu gérer ko mu optimal day dess donc ñaari module yooyu lañ tan tay ci package bi défal leen ko moy esprit entrepreneuriat pour ñu mën entreprendre ak tamit bo leen joxé financement nan lañ koy rationaliser. ok lan ngeen di xaar ci participants yi ñëwoon ci atelier euh, d'abord li ñuy xaar moo ñu saisir opportunité opportunité yi mooy defal nañ leen des dispositifs locaux ñu dem ci pôle parce que bu ñu demee ci pôle euh, ñu fekk fa suñu collègue bi monsieur Diop facilement mën na leen orienter vers les structures yu leen bëgg accompagner ku bëgg formation bo démé ci pôle ñom ñoom mën nañ la orienter ku bëgg entreprendre mën nañ la orienter ku bëgg tamit benen accompagnement ñom mën nañ leen orienter di leen wax ni ñom ñooy suñu démembrement au niveau local té tamit lenen lu may saluer moy gis nañ euh partie prenante yëpp yu participer ci emploi parce que légui comprendre nañ ni emploi c'est devenu une chose d'inclusive donc privé bi amna ci privé bi représenté wu na jeunesse bi amna ci parce que ñoy demandeurs yi te nañ mais tamit structure publique am nañ ci parce que ñam ñoy mettre les cadres les stratégies ñoy faciliter donc le fait que ñu réussir euh, créer cadre d'échange créer créer euh, euh, cadre pour nit ñi mëna y a les dispositifs qui sont là quels sont les mécanismes utilisés utiliser pour accéder si ak quels sont les résultats qu'on attend donc lolu lañu ci jeunesse bi l'ensemble des parties prenantes qui le ensuite ko en salle mang répété ça dépend de la jeunesse ça dépend de la demande de la commune de Kungel, ça dépend des autorités aussi parce que un service public Bo exprimer besoin ñun dañuy ñëw taxaw la parce que moy suñu liggéey fo ñu wo ñu fekk ci la mais tamit ak politique yu bees yi amuñu droit jóge au niveau central proposer la ñun wan nañ leen yoon ñom ñoy xol luñu bëgg ñu doxal ko après ñu ñu accompagner leen suñ bëggé forum mën nañ fi dellu ci suñ bëggé panel mën nañ fi dellu ci suñ bëggé formation typiquement bo xam c'est sur trois jours mën nañ fi dellu ci donc lolu du ñun ñoy déterminer choix yi ñom ñoo koy déterminer au niveau local donc suite nous ci Nous la dépendre Nous sommes disponibles on est disponible parce que service public est c'est automatique parce que nous à la direction de l'emploi dañuy essayer de créer des bureaux locaux pour l'emploi donc des bureaux locaux pour l'emploi nous avons un partenariat. parce que la direction à elle seule elle ne peut pas couvrir communes qui existent. exister donc communes à travers une compétences transférées jeunesse sport et autres nous avons des jeunes jeunes nous n'avons pas installé dans chaque commune des bureaux pour l'emploi d'un bureau pour l'emploi comme nous on est des conseils en emploi ils nous expliquer un peu comment est-ce qu'il faut faire l'accompagnement vers l'insertion après eux qui sont au niveau local ils vont se charger de faire euh, euh, euh, la de, continuité au niveau local de prendre les besoins d'accompagner les jeunes Si nous au niveau local ils ne peuvent pas satisfaire nous fait, appel à nous on vient pour renforcer donc on est là vraiment ouverte à l'ensemble des communes du Sénégal pour nous accompagner la mise en place de ces bureaux locaux pour l'emploi de la fin je euh, remercie remercier bu jeunesse de parce que fekk nañ depuis que suba ñi ngi nous ñi ngi demuñu donc ça montre que c'est une jeunesse euh, engagée la deuxième des choses nous remercions le ministère de tutelle monsieur Dame parce que c'est lui aussi le coordonnateur des pôles. Et nous, nous nous permettre nous mener à travers euh, le directeur de Modifal qui était là ce matin. Nous pouvons remercier parce qu'il était là ce matin, moment présider cérémonie pour nous mener de faire Di remercier tamit parce que nous les jappalé depuis bu nous sommes suba interlocuteurs. suñu interlocuteur bu ñëk dalal nañu faciliter la formation mais mention spéciale aussi au ministre Hassan Diop parce que mon mot nous à travers le directeur de l'emploi nous menons faciliter l'activité organiser l'activité nous lancer appel à tout le monde De nous on est un service public on est là pour accompagner toutes les personnes en âge de travail l'essentiel c'est que besoin bi mu au niveau local nous on va voir le pour l'accompagnement vers l'insertion Merci. Euh, de coordinateur coordination parce que depuis le début, à travers la mairie de Kungel, son adjoint Mamadou Ndiaye lépp loo xamante entre la direction de l'emploi nous moo l'information vers les jeunes. donc tey jàpp naa bi am fi comme coordinateur entre la mairie et les jeunes. Nous sommes un conseil départemental de la jeunesse. Nous faisons une distinction entre nos politiques et nos politiques. Parce que si qu'on a une structure composée, il y a politique et une société civile. Si on a un article, nous avons, c'est que chaque parti politique nous assemblée nationale euh, conseil national day ça veut dire que fofu nonu su tax dugg fofu ne ki fi la bok wala fa donc distinction entre politique ak politique. déjà que mois, président le ministre Assane Diop dafa wax wax du am solo waxal d'abord ñu japp né dañu ñëw dañu nek dañu ñëw assister benn formation bi moy formation des formateurs c'est-à-dire ñoom ñoo ñëw assister formation mais également su ñëwee seen dëkk yi dañu war organiser autour du maire pour convaincre les jeunes effectivement def dañu wax démultiplication donc japp né nañ ñoom également suñu démé tay taxaway bobu dañu fa am mais aussi danañ góorgóorlu ba nga xamanté ni li mu nek walum xey ndaw ñi ñu am taxaway taxaway bo xamanteni boo duñ xaar rek ku ne kay leen déposer mais dañuy préparer sen CV comme niko ko ñi nga xamante mu nek direction de l'emploi waxee sen lettre de motivation ak sen yeneen document yo xamanteni war na mën and ci lo xamanteni so mu ngay déposer pour mën am xey donc vraiment formation bi euh, ñi nga xamanteni té tey ñëw nañu muy direction de l'emploi def ni benn formation bu am solo. ben vrai gàtt na benn journée la mais jeunes sen deglu ak sen euh, mat wax dëgg yalla yàlla def na bañu def formation ci jàmm ba nga xamante ne amul benn euh, xarma et puis parce que ñom nee nañ. direction de l'emploi bu yeen ci jeunesse bëgg ngeen ñu ñëwaat. parce que sank muy muy wax maa ngi taxaw di mais dafa wax pare rek mané kon la balle est dans notre camp donc c'est à nous maintenant de faire les démarches nécessaires pour pouvoir vraiment décrocher ces ces ces ces formations. vous êtes prêt à le faire. ah inshallah parce que lolu motax ñu ne également.

man suma ma occasion vraiment dama leen di sant di leen gërëm di di yónnee ay cant gërëm si suñu kilifa la le maire badouli Ly ñu ne ko vraiment au nom du conseil départemental de ñu koy sant di ko gërëm di mujjé nak suñu kilifa également ministre Assane Diop taxaway bu mu taxawoon avant avant muy nekk conseil départemental taxaway bu mu taxawoon avant muy nekk conseil départemental tay taxaway bobu la nekk la taxaw également ba nga xamante ne conseil départemental parce que mom bien vrai que maire mo ko coordonné mais